ko répondre pour quelques minutes gis nañ nag ñenn ci témoins yi gënoon far te ñoom rek sàngo ñoom ñoo doon taxaw ku ci mel ni euh, docteur Alfousseyni Gaye ku ci mel ni capitaine Touré ak tamit kii di borom kër bu Ndeye Khady Ndiaye di Coulibaly euh, xam naa dinañ si ñëw benn par benn. d'accord est-ce que jamono ji euh, témoins yëpp wax nañu wala des na ba tey ñi nga war nañ leen woo à la barre pour ñoom it ñu témoigner. waaw des na mais apparemment kii moo mujjee wax muy commenceuse moom moo tudd maman moo tudd ma waaw moom moo doon euh, wax sàng nii mais xam naa des na rek benn wala ñaar lu mu bëri bëri parce que am na ñoo xam te ni dañ ko dañoo absenté ku ci mel ni Baye Mbaye MC. d' accord est ce jamono jii ñibbi na kër wala mu ngi ci procès ba tey. waaw mu ngi ba léegi moom sàng rek jëroon nañ ko laajaat bi nga xam te ni capitaine Touré doon na wax mhm. parce que mbir mi dafa demoon ba xaw a salfaañoo ci contrôle kii di maître ndax dafa rek daal di doon dugal capitaine Touré ci ay question yoo xamante ni rek capitaine Touré dafa révisé woon sax bañ cee tontu mais finalement dafa mujjee rek jël ay responsable dem indi ay leeral yu bëree bëri dem na ba wax ne kii di Adji ñoom fi ñu jaar yëpp ba dem ci lii di service bi Capitaine Touré ne moom discipline bi nga xam te ni foofu la bokk muy corps gendarmerie moom moo ko dicté woon li nga xam te ni moom la doon def te li ko ci gën a yéem nag moom mooy ñoom d'habitude buñ consulté waawoon nit war ko bindal lii de certificat médical ak yu demee noonu war ko topp war ko envoyé fii ci hôpital dañ ko waroon yóbbu euh, en principe fële principal mais nag ñoom dañ ko wax ñu yóbbu ko rek euh, hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff loolu nag bokkan na ci moom li tax rek mu xalaat que ne lii nii y a quelque chose qui d' accord euh, ku ci mel ni docteur Alfousseynou Gaye est ce que dafa confirmer euh, viol bi wala itam certificat médical bi nga xamante ni moo njëkkoon génn lan la ci indi ci ay leeral. waaw effectivement comme ni ko ñëpp doon dégg rek moom docteur Alfousseyni Gaye bi nga xamante ni rek ñëw na jël li di kàddu ci kanam ñëpp rek li mu njëkk a wax moom mooy bi mu defee ay prélèvement gis na euh, réelement ay spermatozoïdes yoo xamante ni nekk na ci euh, kanamu kii di Adji Raby Sarr mais nag xamul ba xam sperme buy dund la wala bu dee la mais rek lu mu si mën a wax moom mooy gis na ko foofu wante nag kii di maître El Hadji Diouf da ko doon ji ma dugal nan ko ndax loolu nekkul sperme bu euh, Ousmane Sonko wala déet mais moom daal confirmé ko ne ko moom la waaye tamit invité na ko daal man fekk naa fi. ay espoir yoo xamante ni rek mu ngi woon fii mais nag xaw ma kan moo ko moom ba tax na daal moom it li ko gënoon jaaxal nee na dañoo modifié waat li nga xam ne moom mooy PV juraatam tamit beneen polémique. d'accord maanaam bi dafa am modification yu jot a am. dafa am ay modification yoo xamante ni moom bokkul ak li nga xamante ni moom la bindoon ndax bi mu njëkkoon def moom bi mu linaatee li nga xamante ni moom mooy PV fekk na ci loo xamante ni bokkul ak moom li mu def. d'accord li maanaam li mu jotoon a wax ci. Euh, procès bindoon bokkut ak li mu fa fekk jamono jii tey bi mu fa ñëwee bi mu fa ñëwaatee. voilà am na ay modification yu ndaw a ndaw. d'accord alors yooyu muy kàddu yu am euh, solo leeral yi am na solo sëñ Mor donc bu amaatee leneen loo xamante ni itam euh, jukkee na fa wala bu nu reprendre séance bi. ñu daal di jokkoowaat ngeen jël ñoo indil ay leeral. moom aussi tamit déglu nañ ko moom nag daal dinay indi ay yaatal yu bëree bëree bëri par rapport ak ngir mi mhm. ndax moom moo gën a sax confirmé ñi xam ne dañuy defendre que ne mi tees la ndax nee na kii di aji saar moom bi nga xam te ni rek Ousmane Sonko doon na waaj a ñëw doon na ko woo ay fani fan wala boog di ko laaj naan ko euh, tonton kañ la Ousmane Sonko di ñëw moom naan ko aji ba jàmm la fan yi xewal nga Ousmane Sonko wala jël nga Ousmane Sonko comme niñ ko waxee mhm. mais daal finalement nag la jékki-jékki rek ne bi mu ñëwee mu gis euh, Adji saar engagement wala boog tawarta gi nga xam te ne nekk na di moom ba tax na Ousmane Sonko génnee rek nee na sax moom xamuloon ne Ousmane Sonko mu ngi biir mais Adji Sarr dafa daal di yéeg ci ko balcon bi nee ci laa ko fekk foofu noonu. Mhm. d' accord am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax sëñ moon alors euh, moo dafa mel ni wax leer na parce que li mu mhm. waxoon daanaka rek euh, li jëkkëru mhm. Ndeye Khady waxoon mhm. wax yi waroowul ba léegi ñoom la ñu tàmbaloon di wax ci commencement ba léegi ñoom seen wax dañul waaye Adji Sarr moo moo fi wax téeméeri wax ak juróom fukk mais tey boo xoolee jëkkëru Ndeye Khady kii capitaine Touré nee na dañu changé PV bi. Mhm. def nañ ci ay retouches. mooy la bindoon mhm. moom ci boppam. nit ku nekk la nga bind. Mhm. xam nga la ca nekk ak lu ca nekkul. donc yokk nañ ci loo xam ne moom. ñu doon laaj ne dañu bëgg xam lan moo xew tribunal donc am na loo xam ne capitaine Touré jotoon na ko def. am na ay soppeeku yoo xam ne moom defu ko ci. te gis na ko ci. ci lu mu jàngat. leneen li tamit nee nañ ñëpp ñoo xam ne muy moment ba ak keneen koo xam ne nekkoon nga ci tribunal bi rek. Mhm. la nga daan wax démb ci PV bi loolu nga waxaat tey tribunal. d'accord mais ku tamit Ndeye Khady moom euh, waroon nañ ko mën a libéré. ndax euh, fu ak jigéen wérul donc jàmbaar jàmbaar xoolal du daanu mukk day wuti doole parce que Ndeye Khady bu demee ba toog. Mhm. ne day toog ci audience rek tax dafa bëgg setal dara. Mhm. parce que li ñu doon wax daawaat daawaat ji wax jooju dara dañu ci ba tey. kon bu ñu demee ba tey ñu PV bi nga xam ne cabinet Touré jotoon na ko def mu am ay soppeeku soppeeku rek war nañoo xoolaat mbir mi lan moo ci nekk ak lan moo ci laxasu. parce que mm-hmm. mbir mi nag mu ngi bëgg a lëndëm ci côté li nga xam ne tey capitaine Touré bu dee ñi nga xam ne ñu ngi doon laaj ñi ngi déggu am na ay lëndëm lëndëm yoo xam ne moom defu ko ci woon mm-hmm. kon am na ci loo xam ne war nañ koo seetaat euh, mm-hmm. lii sénégalais sonn nañ ci torop yaa ngi dégg li nga xam ne nag Alfousseyni Gaye jotoon na ko ba léegi dañu koo xam ne c'est pas la première fois. Euh, mu sekk ak góor donc loolu loolu la répété waat am na ci loo xam ne kii ñuy violé mu naan kaay leen wala ñëw leen te li jëkkëru Ndeye Khady Ndiaye jotoon wax ne moom dafa fekk Adji Sarr ci kaw terrasse comme téléphone am baaxul woon mu nekk ci haut tey mu dégg ko muy wax naan ko ñëw naag dugg na fa génn na fa donc ci la violé moom foog naa doo doo ko te doo ko yàkkamti kon foog naa ne Adji Sarr moom leer man damay gis ne Baye Mbaye MC soxlawul sañu koy doy ci dossier bi dara parce que moom ba demee ba dossier bi jeex ko aj Adji Sarr couvrir dossier tëj dossier ci la ci la Baye Mbaye MC ñëwee wax ci waaye fan naa ni ñoom ñi ko sekk mooy ñi nekkoon ci Sweet Beauté ñi ko sekk tamit mooy Adji Sarr mi nga xam ne moo daan dugg moo daan génn moo daan létt di firi. Mor mi ngi waat ci ligne bi allo Mor. allo. waaw nga continuer li nga doon wax. ngi woon ci euh, Koulibaly borom këru bu Ndeye Khady bi moom euh, bi mu ñekkee rek daal di yëkkati kàddu bokk na ci li mu firndeel moom nee na euh, Adji Sarr ay yooni yoon balaa Ousmane Sonko doon ñëw ñëwam yu mujj yi doon na ko laaj a chaque fois naan ko tonton kañ la Ousmane Sonko di ñëwaat kañ la Ousmane Sonko di ñëwaat ba Koulibaly nee na man nag ci laa doog wax sax sama soxna si ma ne ko aji de fan yii yëpp damay sonal ci kañ la Ousmane Sonko di ñëw boobu sax ñoom taxuloo ñu ràññee bu baax a baax Ousmane Sonko waaye nag mu mel ni rek benn jour Ousmane Sonko ñëwee nee na bi ñu commencé ba pare nee na man fii marché ak néegam sorantewul après bi ñu paree rek ci laa gi aji yéeg ci kaw escalier yi nee na ci laa ko fekk foofu noonu fekk téléphone am dafa am problème écoute mu def ko au parlo bu mu defee au parlo nag di wax ci laa ñëw mu daal di koy bëgg génne mais déglu naa mu naan kooku euh, gaawal doomu Mamour oto Mamour Diallo moom moom may jël si léegi après ci la ko euh, kii di euh, juge bi daal di laajaat mu insisté waat ci loolu ne ko Adji Sarr ci boppam mu ngi nii toog jàkkaarloog man moo ne ma oto Mamour Diallo moom moom mooy jël si ba tax na nag ci laa ko doog di laaj nag nungu moo faale après ci la wàcc ma gis ci buntu kër bi noonu rek may taxaw fekk aji wàcc na ma dem dina ci laa gis mu dugg ci ab 4-4 juge bi laaj ko ne ko euh, ban 4 bi na la mel mu ne ko 4-4 bi ñu lëmee na xaw ma ñan ñoo te nekk mais aji bi boppam moom am personne moo ne ma oto Mamour Diallo moom moom mooy jërsi mhm. ne na am na si boo xamante ni tamit bi ñu xamante ne gis naa aji mu génn yore euh, tamit xaalis ñaan ko aji di ko tooñ sax naan ko jarbaat léegi da nga yor xaalis rek da nga commencé changer lan laa yooyu noonu. Mhm. nee na rek waxuma dara luy defaree rek ba ma koy tooñ di ko naan ko yéen séeréer rek di ko def comme séeréer ak nu ñu toonante. Mhm. nee na nag après ci rek aji daal di nag dem mu demee nag di ko procureur bi juge bi laajee ne oto bi nu mel mu ne ko oto bu ñuul la kat kat bu ñuul boo xamante ni daal gis naa ne ñaar ñoo di nekk ak aji saar moom muy ñett ak ci dawal ci kanam. Mhm. neen nag mu laaj ko ñu jox Adji Sarr micro bi laaj ko na ko ndax lii nii ci la avocat bu Adji Sarr di maître la Hadji Diouf ne Adji Sarr ndax yow da ngay confirmer lii Adji Sarr jël benn kàddu la wax dana ko du dëgg mhm. su ma waxee bu dëgg nag ñu laaj Adji Sarr tontuwaatul dafa jàppam njàmburam mais nag juge rek daal continuer ci ki nga xam moom mooy Coulibaly Coulibaly aussi tamit continuer waat ci ay révélation am fi te ni rek foofu lañ commencé gis changement de vie bu Adji Sarr a ñëwee daal di wax kii di Ndeye Khady Ndiaye ne ko dama tollu diggante. Mhm. après ki la ko Ndeye Khady Ndiaye ko tollu diggante loolu nan la mën a nekkee ki la rek daal di dem nag fexe rek ba génn kër gi Ndeye Khady Ndiaye moom nee na. aman na moment yoo xamante ni sax jaaxle woon na source bi ko waxee ne ko section de recherche daal dinañ lay convoqué nee na moo woo jàng yëpp bon ya fa nekk yëpp euh, wala boog masseurs ya fa nekk ne leen lan laa def wala lan moo xew ba tax waa section de recherche di ma daal di convoqué. léegi mhm. boobu Adji Sarr moom moo dem daal di defar a certificat médical am waaye tamit defar ab plainte am daal di koy jébbal ci wax. waaw loolu daal moo jotoon xew après nag euh, kii di euh, xaritu Adji Sarr bi nekk maman ba bu ma jumul moom moo ko Adji Sarr ñoo doon maasee ko koo tamit laaj nañ ko ñaata xeeti massage moo am wax na ko wax na tamit benn bu nekk prix bañ cee fay mais biñ ko laajee ba muy wax ci bi nga xamante ni rek moom moo gën a élevé bi mille mooy bi gën a garaaw di bi laaj na ko ne ko boobu naan ngeen ko defee mu ne moom dafa am kersa pour wax Euh, c'est-à-dire mu sëg daal ne moom di wax boobu mënu ko expliquer bi ne ko ici tribunal la da ngay wax ñu xam bu baax li ngay wax hmm. mu ne daal mënuñ expliquer li nga xam te noonu nga defee ñu laaj ko ne ko ndax nit ñi bu ñëwoon di maase wu dañuy sumne ko wala dañu sol yére mu ne san départ bi nga bëgg bu la neexee am na boo bëgg da ngay sumne ko parce que bu la neexee tamit nga sol yére san départ yow hmm. boobu taxaw daal mu jur ay ay ay yu ndaw salle bi ñëpp daal di reetaan ñu war a di continuer mbir mi mais daal moom bi mu paree nag ci leen daal di suspendre affaire yi xam naa pour quelques minutes incha allah dinañ ko reprendre. d'accord alors euh, instant bi tension ki euh, foofu ca tribunal climat bi nu mu mel. climat bi ndax euh, nit ñaa ngi kaf di réew ay laatam kanam yi dafa dafa xaw a ñagas na la tension bi mel climat bi foofu. waaw certainement bi nga xamante ni rek capitaine Touré doon na wax xawoon na am émotion nax moom boo gisee na muy waxee euh, naam doon nañ ko sëkkamtal ci ay question surtout El Hadj Diouf doon na contre attaque ay waxam mais teew rek moom dafa resté serein bu El Hadj Diouf di laaj wala mu di ma jaxasee wax ci day bàyyi bam dara rek mu ne ko s'il vous plaît même à bi moom mooy calmer kii di maître El Hadj Diouf ndax El doon defee liggéeyam na noonu la sax mais da ci doon xaw di ëppal ba tax na daal de temps en temps rek juge bi da ko doon euh, mais nag euh, li nga xamante ni rek moom moo fi xew mooy gisuma kenn ku nekk ci état bu doy waar gisuma tamit kenn ku jàpp benn benn am na ñoo xam te ni dañoo ñëw juste rek pour assister affaire bi moo tax euh, bi capitaine bi da doon wax sax ñenn ñi ñu ngi doon am émotion boo xamante ni mais nag ñi di takk der yi buñ la gisee rek. nga réagir réaction boo xam te ne dafay nduróog far yooyu wala yu demee noonu dañ lay daal di génn salle bi sa téléphone aussi tamit comme niñ koy gisee doo ko laal doo ko jege da ngay toog jàpp li nga ni moom mooy salle bi mais daal bi ñu gisee kii di euh, Koulibaly bi mu demee ba jël kàddu gi bi Adji Sarr daal di tontoo contredire li nga xam te ni moom la wax Koulibaly commencé woon na di bëgg gis boppam ginnaaw bi maître El Hadj Diouf tamit ñëwee waxaat ay yeneen question yoo xamante ni peut-être ko koo xaw a choqué ba ñu xaw a weccantu ay kàddu foofu noonu ci la ko tiis bi daal di recadré war moom Koulibaly ba tax ne rek dooroon na ko sax topp ci problème mais da koo mujjee bàyyi wax ne ko demal toog ba ñu soxlawaat la moom mu daal di dem ñibbiwaat mais fii daal amul benn tension boo xamante ni bu mën a créer problème na wala léegi ba fi ñu toll nii. d'accord jërëjëf Mor ñu ngi kontaan ci leeral yu am solo yi. jërëjëf amul benn problème loolu xalaat rek ñu ngi doon gis sàng kii nii Abdou Nguer mhm. euh, bu frère bu Adji Sarr bi sàng rek dem na bay wax ak ñun mais dane na bàyyi rek ba audience bi jàll dina ñu dikkaatal lépp li nga xam te ni rek Adji Sarr wax na ko waaye tamit lépp li nga xam te rek xew na ko mu mel ni moom it jàpp na confiance te fi ñu nii mais daal ñu ngi xaar rek incha allah bu ñu reprendre tey dinaa duggaat si biir di ma xoolaat ay information lu ci beesaat rek dinaa leen euh, revenir ak soobee yàlla. jërëjëf Mor ñu ngi lay jaajëfal bu baax di rafetlu liggéey bi di la ma am lu ma ko laaj. waaw Mor wuyul maman. Mor <laughs> waaw ñu ngi lay ziar dama ne. waaw Abdou Nguer du moom moo doon jën jaay ngelaw Sidi Ahmed Mbaye wala Sidi Ahmed Mbaye moo jëndoon ci moom ngelaw du ñoom ñoo doon jaayante vidéo. voilà même euh, Sidi Ahmed Mbaye sax bi mu ñëwee di wax doon nañu wax ci lu jëm ci clé bi mais moom dañoo gisan kenn daa xawan di euh, patiner ba tax na daal da doon wax di juum di wax euh, astafurla ak yu demee noonu mu mel ne gis nañ ci moom kenn daal tesa na nit ku confiant ci boppam par rapport ak li doon wax ak a def. waaw mais mais Mor jotoon nañu wax ci clé boobu clé bi nga xam ne ngelaw kese la ko jaay léegi ñoom ndax juge bi jotoon na ci wax wala déedéet. waa jot na ci wax même El Hadj Diouf jot na ko interpellé ci lu mel noonu ba moom mu ne yor naa ab kele boo xamante nii daal da bëgg nañu teg ko te incha allah dinañ ko teg mais nag xamuñu ba xam kele boobu lan moo ca nekk ndax lu ñu monté la wala ndax kele bu am ay vidéo yu authentique la wala déet mais daal gis nañ ñu teg benn machine boo xamante nii bu ñu war a projeté après ay vidéo la dama xamul ndax lépp dina fi mën a àgg tey wala ndax mën nañ ko suspendre ba demee mbay kii di am na mbay nag wax nañ ko ci lu jëm ci kele beeg yu demee noonu mais comme li ma la wax rek waxu ko dara lu tege da doon wax di juum di juum ci ay kar woon di rectifier war boppam ba tax na daal saal bi rek ñëpp dañoo mujjën di di ko retaan. jërëjëf. Euh, may ma may ma mm-hmm. tuuti moo moor. Mm-hmm. waa ñoom dañuy jotoon dem ba ba ba portante ci plainte bu ñu waxee ne Sidi Ahmed mbay nee na ko clé bi dara nekku ci donc loolu jotul am benn suivi ci wàll yoon léegi ñoom lan la ñu war a mën a amee beneen clé boo xam ne bu uute bi nga xam ne Sidi Ahmed mbay jaay na ko. Euh,